Abdou Diouf nekkoon suñu njiitu réew ñoom génne nañ nag ab kayit di àddu rek jëmale ci crise politique bile ñoom naka la ñuy def du leneen lu dul rek euh, woo ndaw yi ñu wàcc nag ci li nga xamante ne ni euh, moom mooy fa ñu maanaam nag des rek di amal ay manifestation ci seen bataaxal bi rek la leen di xamal moom mooy euh, jamono ji fitna gi doy na ba tax na daal dañu war a toog waxtaan naka noonu tam ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo sekk làngu ko politique gi Le Soleil dañu ci xamal rek ne PS ak AFP ñoom ne nañ ànd nañ ci bu baax a baax loola itam Karim Wade la mu yee rafetu la rek jàpp nag ne kilifteef la rek ci ñaar ñi nga xam ne jot nañoo jiite réew ko Sénégal waaye bu ñu koy xamee rek ci wet gi loolee bokkul benn yoon ak gis-gisu Khalifa Babacar Sall mi nga xamante ne nag nee na waxtaan jamono ji nekkul loo xamante ni daal lu ñu yàkkamti la ba tax na moom ma daanaka bëggu ko dégg Sud Quotidien yéenekaay nee na nag ci élection yi ñu dàqande crise politique bile du Diouf ak maître Abdoulaye Wade ñoom soob nañu ñàkk seen loxo ci lu ni mel fitna gi waaye tamit yàq bi nga xam ne daal ñu ngi koy def ci réew ka Sénégal lam leen di woo ma daal moom mooy ah, ñu def jéego ci ginnaaw te bañ rek jox nopp ñi nga xamante ni daal jàpp nañ ni ñoom ñooñee dañu leen di ah, manipuler ci lu ñeel rek classe politique ah, gile ak société civile tamit ñoom ne nañ leen nañu daal def seen kéem kattan ba toog ci tabal gi ngir nag waxtaane li nga xamante ni moom mooy wote yi ñu dàq bu ko defee ba su ko fukki fan ak juróom ci décembre atum 2024 ñu amal élection yu mucc ay loole bu ñu koy wax las yéene kaay nag nañu dafa mel ni daal woy wa benn la te ñëpp a koy yuuxoondoo di ko dégg jàpp leen daal ni ñoom nee nañ waruñu daal def lu yées ci li nga xamante ni daal ñoom ñaar ñi jot nañu ko def ginnaaw ba ñu jiite réew Sénégal seen kàddu la bokk na ci tam lu yéene kaay bi dëxëñ rek ci xëtam mu njëkk li nga xam ne ah, moom mooy waxtaan bi nga xam ne ah, dox na diggante Ousmane Sonko ak njiitu réew mi ah, Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango Walf Quotidien euh, yéenekaay moom nee na nag jamono ji bu ñu koy xayma euh, loole euh, lu ñuy waxtaan la daal waaye moom daal jàpp na yëf yi mënuta demee noonu Abdoulaye wadd ak Abdou Diouf ñoom ay bekki rek la ñu daal di yor ci li nga xamante ni moom la duppeete ji ab ku fuare ci wet gi dox ak ñaxtu ba ku jég itam ñu ngi ko fi waxtaane mel ni daal jamono ji Dakar ci xottuka nen la ñu daal di toog di xaare ndax fitna dana ci jib wala déet enquête yéeni kaay nañu nag pexe la ñuy nas di ko nocci bu ñu koy xayma rek ginnaaw euh, pexe politique ak fitna gi nga xam ne jot na ci ji ba ci loi d'amnistie ba Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye njiitu réew Macky Sall fang ci tukki yëglekaay bi ñu nañu nag bi lekk texte daañu ko yóbbu ca conseil des ministres ci àllarba ji laata rek ñu ko yóbbu ca boru ko assemblée nationale bokk na ci nag jamono ji rek ñenn ci ñi nga xam ne droit de l'hommiste lañ ñoom ñu ngi ca émettre rek seeni réserve waaye Ousmane Sonko ñoom tegg ci diggu uh, waxtaan gi libération yi nikaay moom la mu xëy tey ji bokk na ci ñaar ci doomi pendanaar yi di Alioune Tine ak Pierre bi Atepa ñoom nag nee nañ ci li nga xam ne daal moom may waxu projet de loi d'amnistie bile ak dialogue bile nee nañ daal ñoom ñooñee ñu ngi rek ci pexe gi nañu koy amale moom architecte boobee di Atepa nag la mu xam ne rek moom mooy mu ngi waxtaan ak ñenn ñekk ñeneen ña waaye daal di xam ne tamit ne faw rek ñëpp daal di ubbeeku ay tamit daal di wàcce seen bopp Alioune Tine la muy ne daal moom mooy yu néew Ousmane Sonko ak yeneen cay def ni politique ni ñu ko waxee ñoom ñooñee daañu leen bàyyi waaye la seen Sall moom déggewu ko noonu la mu xamle moom mooy naka nanguk amnistie gi la jaar ci ab jaloog nag nekk na loo xamante ni daal jàpp na ne euh, war la euh, li nga xam ne daal moom mooy ay intérêt ay Sénégal la dil la boobaak léegi ñu ngi koy wax info yéenekaay nañu nag jamono ji daal bu ñu koy xayma lu ñuy proposé Ousmane Sonko la journal l'info des ak ñun rek ci coowal lu ni mel di xam ne ni euh, bu ñu koy xayma nag lépp rek la ñu daal di réglé ci li nga xamante ni daal la jàppale nag ni euh, loole ci ay ñaaru ayu bés la suñu euh, ginnaaw jàppaleen daal ne loole nag am na ci guddi ginnaaw nag bi nga xam ne daal ak njiitu réew mag saala yónnee dem na ca boruka Cap Manuel ginnaaw nag ay waxtaan jàppaleen nag ni ngi xaan rek ana ci ban anam la koy amale ak waxtu ba waaye Ousmane Sonko la ñu koy proposé bu ñu sukkandikoo ci l'info moom mooy nag jamono ji ñu daal di koy jéggal ginnaaw nag bu nangoo rek ne élection bi ñu daxandiko ci diiru ko ñaar ci ay at loole dana mën a tax nag moom Ousmane Sonko mën a bu soobuwaat ci li nga xamante ne ni ah, moom mooy yi lekk woote mën ci samp ab ndëndam bés bi le jour moom la mu cay wax jamono ji ah, moom mooy ab médiation la ah, Macky Sonko ngir nag rapport la nag boo xam ne daanaka jamono ji rapportu kakawu la ñu ko duppee Atepa Marème Faye Sall jamono ji daal dafa mel ni ay pitax yu weex lañ yoo xam ne daal la tiim nañ loolee ñu duppee rek ay faucon tey ji Abdou Diouf ak maître Abdoulaye Wade mel ni ay sapeur pompier Alioune Tine di ñu xamal daal Ousmane Sonko daañu ko bàyyi la tribune yéeni kaay moom xetamu njëkk nañu nag ginnaaw xalifa ak Karim Wade ndax Ousmane Sonko dana nangu rek bi lekk deal maanaam moo ñu koy xamal moom mi nga xam ne jàpp na nag léegante ji rek Alioune Tine ci mission commando la ñu nekk rek di dox ndax njiital Pastef daañu ko bàyyi laaj la nag boo xam ne ñoom ñoo itam jot nañu ko samp ñoom ñoo ñooñu sax des di am tamit ab njaxare wala boog sikki sàkka ci loole euh, di euh, loi d'amnistie bi ñuy waxal bokk na ci nag loo xam ne mën na jur dal wala déet Dakar Times moom ci xëtamu njëkk nee na fang Sonko na mu ko tàllalee loxoom jàpp nag ne Ousmane Sonko tey ji dana nekk ab candidat candidat bu ñu sukkandikoo ci la ñu dëxañte ji ci seen nag xët wu njëkk mu mel ni daal yëf yi ay pexe la yoo xam ne daal ñu ngi koy nasakanoo ci boobaak léegi ubbi la le témoin yéenekaay moom xëy na nag nañu préfet bu Dakar ci talaata gi daal nee na Euh, moom mënta rek bàyyi askan wi lee ñu daal di wàcc mbedd mi ndaxte nag mën na ci rek jur ñenn ci jafe-jafe ba tax na nag moom mu ngi ceen di woo mu xool rek beneenu ko pexe loolee daal di àpp mardi boo xam ne bu ñu mooy daal mënees na tàng la tàng moom mooy biir Côte d'Ivoire stade yéen i ñu xëy nag ci ndam li nga xam ne ñoom éléphant yi lii am nañu ko ne ñu nag ginnaaw jamono ji euh, kii di bel euh, di Belmadi si Cissé Emerson nag moom mooy ñetteelu ko sélectionneur bi nga xam ne doomu réewu Afrique la moom jël bi lekk coupe d' afrique des nations mais nag ñett yi mujj yëpp ay sorciers noirs ñoom ñoo ko daal di jël Côte d'Ivoire ñoom seen i supporters lañ leen di xamal daal moom mooy ñooñe amuñu njëriñ waaye daal terewul gàddu nañ raaya bi maanaam on vaut rien mais on est champion bokk na ci nag la ñu xamle euh, tey jii ñuy xaaraat itam loolee di Manchester City Real Madrid ci huitième de finale loole di wàllug Ligue des champions jàpp leen nag ni ñoom ñoo ñi euh, daañu ca tàmbali tey jii Manchester City di wutali Danemark ak Copenhague Real Madrid euh, di dem baruk Allemagne fas yéene rek janno ak Rasenballsport Leipzig Chacha Diaby lii mooy lu seen i kaay xëy fësal ci bésub tey nii.